لكل من جملة الأغيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار الحمد لله إنه سنتي الله تي سنت زيخ سيدي مختار محمد الله من شيخ مختار ما يبقوي شيخ سيدي مختار دومي سرين بار كلي دي جمبار وحنا تي تورو سيتي شيخ سيدي مختار لي ورا الكادو نك ci ndigalu Serigne Khadim mbake mi tok mu jole ndigal ci Serigne mustapha mbake mu war ko jotli mbokki taalibe yeeg jullit ñëpp rek mu melni ne yi dafa am taxaway bo xam mom lañ ci daan taxawé kon Serigne ba nga leen ci soñu comme nañ ko daan taxawé rek mu taxawé ko non ndax bis la ñuy wajal boo xam bisub Cheikh sidine mukhtar la di fukki fan ak ñaar ci koor gi sëñ bi joxe ci ndigal. yu bu yàgg ni sama fekke ak sama wuute tey jii Cheikh Ahmadul Moustapha yeesalaat ndigal loolee looloo waral tey jii njëkkati suñ kàddu di soññ mboolem siti si li Mokhtar yi ci turu Serigne Alaaji Mbàkke mi nga xam ne moo yore mooy njiital daayira bi di wax sëñ baa nga leen di wax ni lépp loo xam ne daa ngeen ko taxawee ci bis bi rek ñu ngi leen ci soññ ci côté yëpp waaye di soññawaale mboolem eh, daayira set yi mel ne setaati Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yi nga xam ne. ñom dañu ñu àndal liggéey yu bari ñom tam ñu leen di sañ bu baax ci bis bi nga xamne mom moom dañuy di fàttali ko Cheikh Sidi mukhtar diko ci ñaanal ndax bis la bo xamne ñëpp ci wara bàyyi xel. sadd lisaani nawir janani safi amaani wasit ibrahim mbokk julit yi mbokk talibe yi di nuyu di leen siyar bu baax di ñaan suñu borom defal ñu jàmm ak tawfiq di ñaanal Cheikh mohammedul muntaha suñu borom yagal ko fi te di ñaanal suñu jeewriñ sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha di xalifab Cheikh Mouhamadul Lamine Mbacke suñu borom yàggal ko fi te ko lool ak mbooleem njabootuk Cheikh Mouhamadul Lamine gépp bu ngeen gisee ñu tey kàddu gi nag li ko waral muy bis bu mag jub si muy bisu sunu sang ba si di Moukhtar Mbacke mi nga xam ne moom la ñuy jooyte noppeeguñu muy kenn ci ñun koo xam ne lépp ci ñun ci moom la jóge ñu koy waajal bis boo xam ne nag fukki fan la ak ñaar ci weeru koor rawatina na kàddu gi ñu jël nag ñu ngi ko jël ci daaira safinatul amaan di turandoo yi nga xam ne daaira bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem turandoo yi sëñ Sidi Muxtaar yi ci àdduna képp koo xam ne gis nga kàddu gi mooy sa woote te nga bokk ci daayira bi lépp loo xam ne daayira bi sasoo woon na ko tamit nga jaayante ko te indi ko ñu fas yéenee ànd waajal bés bi ndax am na lu ñu sëriñ bi waxoon ca ba ñu siyaare ca màggalu Mbàkke Kajoor ga kon amatul benn yoon boo xam ne war nañ koo des ginnaaw lu dul góorgóorlu fexe ba li sëriñ bi bëgg rek ñu nekk ci ndax mooy suñ njariñ tey mooy suñ njariñ ëllëg kon nag bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu nga xaye dañoo ay ci Baay Cheikh Sidi Muxtaar Cheikh Sidil Muxtaar moo waxat ni daa leen wutal bis ngeen di ci daje di ma ci ñaanal muy fukk fan ñaar ci koor gi teg na ci it nag def lu baax li muy baax baax saxal ko moo gën a tee baax kon nag magi taalibe yi nga xam ni ñoo sëñ bi démb ak bëkk démb ak bëkkat démb ba ci maam ba ciy maamaat ndax moom ku am kóllëre la bis boobu daal lañuy ñuy topp la di ko sàmm Mbàkke Kajoor incha allah fukk fan ak ñaar ci koor gi ñu daal na ñu ku ko mën nga daje fa di ko ñaanal ku ko mën foo nekk nga ñaanal ko waaye bis boobu nee mooy bisam moom moom daa leen wutal bis mu seen bis moom daal la ñuy fàttali. a ah, kon nag mag ñi moom ñi nga xam ne ñoom ñoo jaar ci daara ji wala ñi nga xam ni moom ñooy mag yi mag ñi alaj njol sek geek señ sefi ñang male ci mbak ba rek ak tolube yep rek rek ñep ak ñi nga xamne amant na ak ñom demb ak bëkk demb ak baka demb xam nañ xam na jur ma di ci jaar ñom xam nañ ñom ñi nga wo ñëpp dal bayuñ kenn di ñaan yalla bis bi ñu dëgmal ñu dugg ci ak bismillahir rahmanir rahim te àggale ko ak alhamdullilahi rabbil alamin te deppo ci ngeerumul cheikh sidil muxtaar na noo jox ndigalul nu soññi tout tànk yi nga xamante ne yàlla dafa dogal nu ànd ak ñoom di liggéeyal sëriñ Baara di liggéeyal Cheikh Sidil Muxtaar waaye nun moom amuñu ci kàddu lu dul xanaa toog déglu rek lépp loo xamante ne taataan nañ ko fi ci lu ñu war a def ñu fas ko yéene jëfe te xam ne nun moom ay uti lañ rek. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalib yi ñu ngi nuyu ñëpp tey ji tey ji ziare ñëpp. ci ndigalul sëñ xaadim moom sëñ Sidi Muxtaar mi teew ñun nag dañ leen di indil maanaam comme ñi wax nañ li nga xamante ni si mooy nii niñ taxawalee daayira bi ak niñ ko bëggee ak fi ñu bëgg mu àgg fa ñu ñëw dëgtal leen ni nga xamante ni si moom lañ taxawale bureau bi bureau bi nag niñ ko taxawale sëñ xaadim mii moom la suñ jëwriñ sëriñ Moustapha moom sëriñ Sidil Muxtaar teg ci suñu kanam muy jëwriñu kër gi di jëwriñu daayira bi ñu toftal ci sëriñ Cheikh Ndiaye muy président bi Aladi Ndiaga Gueye vice président Serigne Khadim Sey secrétaire Serigne Cheikh Gadjaga, commission finance Serigne Cheikh Diop May ak Serigne Cheikh Diaw commission culturelle Serigne Baké Khouma ak Serigne Cheikh Ndiaye ak Serigne commission chargée de la communication et de la relation extérieure Serigne Modou Fall ak Serigne Modou Sall commission organisation et patrimoine. Serigne Sam commission administration et pédagogique. Serigne Serfaï, commission chargée des affaires sociales et, humanitaires. Serigne Maïsanyang Niang ak Serigne cuisine. Serigne Cheikh Sey ak Serigne Modou Camara collation. Serigne Sali ak serigne Abdoulahat Mar accueil serigne Cheikh Mbeng représentant du Daïra au marché guimind serigne pap Pape Diop représentant du Daïra au marché okas noonu lañ taxawale bureau bi ñoñu ñoo ci nek aouzu billahi minash shaitani rajim bismillahi arrahmani rahim alhamdulillahi لله الذي جعل amana rasul الرسول وخلفاء alayhi الصلاة والسلام وارتداهم لسهادة التوحيد الملائكة الأرض والسماء وقرهم بالنفي الأصواه مع خيره بقوله تعالى هل يستوي الذين يحلمون والذين لا يعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bi nu sante yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di sant cheikhuna di ñaanal Cheikh Muntaxa mi nga xam ni moo fi xaadim rasul sunu borom yàggal ko fi te kàttanal ko te wéral ko bi barakati xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ci teg ki nga xamante ni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke di Cheikh Moustapha di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko te kattanal ko ñu jële ci moom ndigal ndigal loo xamante ni Serigne Sidi Muxtaar moo ko ko joxoon ak dundam daan ko taxawe muy bisam boo xamante ni bisub Cheikh Sidi Mokhtar la bis bi nga xamante ni ci la sëriñ bi gane àdduna ca Mbakke Kajoor muy fukki fan ak ñaar sëriñ bi nag ci ak nekkam mu joxoon Cheikh Moustapha ndigal loolu nit nañ koy màggal sama nekk ak sama wute loolee nag sëriñ Mustafa mi ngi ci soññ ñepp mbokki talibé yépp di ci sakku ñaan ci mbolém yip yépp mbolém talibé yépp ci bis bu tedd bobu bis bobu nak mom la ñuy wajal muy al alxames ji nu jëm ci mbacké kadior mu ci jital njabotu khadim rasul gep la tambalé ci Cheikh Mustafa ba ci cheikh Mourtada la tàmbalee ci soxna Fadja ba ci soxna Maymuna rawatina nag njabootu cheikh Mouhamadul Lamine Baara Mbakke gi nga xamante ni amuñu lu dul ñoom sëriñ bi mu ngi leen ci woo bu baax di ca jiital kër euh, sëriñ Xaadim Muudu Baara sëriñ Muudu Baara mu sëriñ Xaadim Muudu Baara ba ca. kër sëriñ xaadim awaba diko di ko yëgal ñëpp di sakku tamit fu way nek nga ñaanal cheikh sidi muxtaar sunu borom yok ko ay leer ci barsàqul muhammadiya fépp fo xamanteni tamit daare kamil ma nga fa ci biir rew mi ak bitim rew sëriñ bi mi ngi sakku tamit ñu ñaanal fa cheikh sidi muxtaar lolu bokku na ci li nga xamni moko gëna ñor ci bis bi di ko sàkku ci mbooleem daare kaamil yi nekk Touba Daaru Moxti Daaru Salaam Mbakke Bawal fépp rek foo xamante ni sëriñ Touba joxe woon na fa ndigal ñu fay jàng kaamil bi sëriñ bi mag ngi sàkku ñu defal ci Cheikh Sidi Mokhtar ay ñaan di ci woo ñëpp rek di ci woo tamit njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké gépp sëriñ bi mi ngi leen ci woo te di leen ci soññ ci ay ñaan ginnaaw bi loolu jàllee sëriñ bi joxoon ma ndigal ni fépp foo xamante ni taalibeb Cheikh Sidi Muxtaar dafa nekk ndigal la sëriñ bi joxe woon muy dayre boo xam ne sëriñ bi moo ko joxoon ay taalibeem muy sahaadatul abraar sëriñ bi mu ngi soññee daayira képp koo xamante ni yaakaar nga Cheikh Sidi Mokhtar muy góor wala jigéen wala mag wala ndaw sëriñ bi joxe na ndigal loolu ñu fas yéene ko wéyal te fas yéene cee farlu te kenn ku nekk tamit soññ ci sa njaboot te xam ni liggéeyub Cheikh Sidi Mokhtar la woon loole nag sëriñ mustafaa mi ngi koy soññi mbooleem fu taalibi Cheikh Sidi Mokhtar nekk mbooleem fu turandoo Cheikh Sidi Mokhtar nekk mbooleem koo xamante ni si soppe nga wala wëlëre nga daayira boobu ñu ngi la ci soññ ci biir réew mi ak bitim réew di ñaan sunu boroom defal ñu jàmm yàggal fi Cheikh Moustapha ba li mu yéene lépp sunu boroom àggale ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan tamit Cheikh Moustapha mu yàgg fi lool ndaxte bi mu yëkkatee daayira bi mu yëkkatee kàddu yi lam ca jiital mooy njabootu Cheikh Sidi moxtar gi nga xamante ni ñoom la bokkal Cheikh Sidi moxtar ñoo ca jiitu taalibe yi soog caa topp lépp loo xam ne lu ñuy def la waa kër gi ñoom góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku nekk fas yéene naa jóg liggéeyal Cheikh Moustapha na mu liggéey la woon Cheikh Sidi Mokhtar ba am ngërëmam njaboot gi yépp loolu lañ fas yéene ànd ak moom liggéeyal ko ca la nga xamanteni ngërëm yoy loolu ngërëm yi amone Cheikh Sidi mohtar ñun tamit ñu fassiyene ko ci am di sant ñep di ñaan di ñaan yàlla yóbbuñ ci bis ak jam assalamu alaykum wa rahmatullah sëriñ bi bo moom sa bu tawé rew mepp toy te bay Cheikh Sidi Mokhtar daram du boy sag leera sarmba samaaw tor toor nga yaaraw njanaaw yomal xiyaam yal nan fa jeegi sirat no noo bi